mi ngi nee di ñëw Mbacke mi ngi nee di ñëw sëñ Ba ngi nee di ñëw. mi ngi ñëw waaw waaw mi ngi nii. Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëf Seex Ahmadou Bamba jëm si kër ga ma ñëwee ñu ne ma ñu ne ma ñu ne ma ba ba ci la ci gën wa da ba ba dañoo tas ci yoon kii ma mewndu laa demoon di seeti Cheikh Anta hmm waaw bismillah kon kay ana Abdoulaye Diagne loolu ci man ngi bi mu ngi man wàcc ma sax dama ni dama ni Amine na ma na laaj. kon bi ñuy ñëw fekk na ngeen ñëw fa yéen. déedéet maanaam dana nekk da doon daj ci yoon bi. waaw. farada bi kulla aduwin si doxu. waaw qultu wa qad nawaytu idmaana shukuri ila aljinaani wa huwa almuni shakur. allahu xayru man lahu yawi faqir. muxsinu bannin sotiraarin wa xaqir. wa siqtu billahi alladi qad anzala kitaabahu wa qad gada bi nuzula afaadani llahu binafcin uqila bihi wa binnafci alladi lam yuqala aqra'uhu musalliyan murattila liwajhi man yawi alladi tabattala amdaxu xayra alcaalamina musjala bimaali marjaanin wa durrin axjala muhammadun afdalu man tawassala bihi lahu man fihi baa asala amdaxuhu liwajhi rabbiya alkarim بأحرف ثوابها ليس يرد مدح النبي المصطفى الهادي العظيم هو امتداح الله في العرش العظيم مدحته وكف عني الرجيم في البحر وحدي بسحبه النجوم قلت وقد برئت من كل أذي بجاهه كما تفارقت المذيب صلى عليه بسلامه العظيم في أسله وفي قومه ولي جاد بعظيم أكرمني الله الغني المغني بما لديه وأزال الضغن قد جاد لي منه بمستكني وكل ما بعت اشتراه مني وثمني يسوق لي بالمن وسلعي في البعض عفوا عني وقلت فيه شاكرا بالوزن وبالنبي قد أزال حزني الله خير مشتر ومغني لمن به مع النبي يستغني قد كف عني جملة الأسرار في البحر وحدي سيد الأبرار رميت في البحر عن الأستار الله جل والنبي المختار صلى عليه الله بالتكرار وجادني بجملة الأسرار قلت وجاء ثمن الصغار وثمن الكبار والصغار محمد خير إمام جاري وفيضه إلى فؤادي جاري ماح محى عني كل ما فسد بامتداحه غدوت كأسد الله لي جاد بروحي والجسد بجاهه ولي راض من حسد كفاني الباقي المحيط والصمد بجاهه كل بلاء وكما قلت قلت وفارقت الحساب والنكد في أبد بجاهه وكل كد صلى عليه بسلامه الأحد في مجره كما كفى من جهل waaw Abdou yaa ko nag xel nga ci biir ak def kër léegi nag waaw. waaw ñoom nañu wax. li ma leen waxoon. Mhm. ndax moom mi dafa tajwid ni mu def léegi. Mhm. Mahfouz ma leen. Mhm. moom it ñoom ñaar ñu koy ñu koy ñu ma ni leen nag alxuraan ji baax na lool waaye ku tedd ki di ko def nii fi ñu toll nii mhm. maanaam alxuraan eh, sirru bi mhm. maanaam fi ñu toll eh, diw gi mooy xasay bi mhm. ñoom damaa wax ak ñoom nga ñëw confirmer li ma wax dëgg la man bu leer na dëgg wax ak ñoom nga ñëw rek bayt bi ci biir wasiqtu billahi alladi qad anzala kitaabahu wa qad gada li nuzula afadani llahu bi nafin uqila bihi wa bi nafin alladi lam yuqila aqra'uhu aqra'uhu musalliyan murattilan li wajhi man ya'wi alladi tabattala daa adduna kon yaa ko dégg waaw sëñ baax na sëñ Modou nee nga toog ak sëriñ bi